tey nag sukaa ambassadeur Inde mhm. ñëw na keroog Walfadjri e eh, gars yi wax nañ ko ne ko am na benn émission boo xam ne bi am na rubrique Inde intéressé na ko nuyu ko waxal ak moom ci wàll Inde ay e looy wax nii waxal ak moom ambassadeur bi nuyu ko wax ak moom ci Inde ha ab ko euh, salam kartion euh, mais मेरा नाम फातिमा इंदू है इंडियन का कार्चल चला रही हूँ इधर यहाँ पे सोल्यूशन टीवी और वालफू और इजाज़त है तो मेरे को मौका देना चाहिए आपको मिलने के लिए और हमारा स्पॉन्सरिंग का मेरा प्रोग्राम चाहिए स्पॉन्सरिंग चाहिए इंडियन का कार्चल के लिए वल्फ टीवी और सोल्यूशन टीवी में और मैं बहुत खुश हूँ कि आप आया हमारा टीवी में मैं नहीं था लेकिन याद किया आपको और खुश हूँ बहुत बहुत खुश हूँ आपका आने में हमारा टीवी में waaw macha allah na ñëw sponsorisé rek émission bi boxot boxot boxot mooy ñu ngi koy ziar bu baax a baax boxot boxot bu baax a baax déedéet bu baax a baax waaw mais boxot sukriya jërëjëf daal ci ñëwam fii ci Walfadjri macha allah boxot boxot sukriya waaw eh, di di dina rek na ñëw sponsorisé nag ah, macha allah macha allah nag da ci daal di am solo dana ko seetaan yëpp dama am benn directeur euh, Fulbe maa ngi koy nuyu daf moom dama fa mos a jógee mhm. mu woo benn indo nee na dafa may test nag ndax dégg naa indo mu woo indo bi indo bi yuuxu dëkk noonu mu ne ah, mu ne woon li ko fii def émission yi xaw ma dégg nga indo Abdoulaye Diallo waaw Abdoulaye Diallo bu euh, Ali Malel Diallo Fulbe Fulbe TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax mm-hmm. di ñëw rek euh, ci film Size Zero mm-hmm. Size Zero nag buñ ko waxee mooy euh, maanaam taay bu ndaw maanaam taay zéro mm-hmm. ah mu nekk film boo xam ne mu ngi wax ci jigéen bu am poids maanaam jigéen bi nga xamante ne nii dafa am poids xaw a mel ni sukkaambaay wala xaw a mel ni <laughs> waaw waaw ndax xaw a xaw mel ni faat jee rek <laughs> <laughs> macha allah euh, size zero mu nekk nag film boo xam ne ñu ngi ko def 2005 euh, la woon mu nekk film tamul film tamul la waaye dañ ko def ay version yu bëree bëri version inde bi nag seetaan nañ ko ba mu jeex mu nekk loo xam ne marqué na euh, trop ay jamono ndax bañ ko defee 2005 la waaye lañ ciy dund dafay mel ke ni moom la ñuy dund tey ci 2023 bi nii bu acca gis ngeen foofu noonu mu nekk nag jigéen bi nga xam ne toll na maanaam ci sëy war a sëy yaayam Euh, bi nga xamante ne moom moo ko jur maanaam moo njëkk a def ci xelam kene yow jigéen ju am njaram nga góor ñi dañoo bëgg jigéen boo xam ne maanaam taay fil la ndaxte nag euh, taay fil lu la neex ngay sol fu la neex jëm xam nga da ngay nekk daal ki nga xam ne da ngay tegu siraay bi waaye boo xawee am yaram Uh, maanaam góor ñi fi lañ lay bàyyi te man dama bëgg nga am waa ju baax joo xam ne Angleterre wala Europe sax lay jógee ñëw yor la defal la ay teraanga yoo xam ne moom la bépp yaay di am si doomam ba mu defee loolu nag ci ndaw si ndaw si bañkat la sax deful loolu ci xelam waaye yaay ji di ci insister ku ñëw tamit pour war koo takk famille ku góor ki ak ku góor ki bu ñu ko gisee rek maanaam yaay ji day yónnee ay faux photo photo koo xam ne taille fil la léegi bu ñu ñëwee nag dañuy gis ne ndaw si jongoma la ñu ne ko yow foto bi ñu yónnee mu ne noo xam naa yëre yi muy sol moo ko xaw a may poids ni mais melul ni te dem na sax euh, size zéro maanaam fi nga xamante ne ni fa la ñuy exporé fi la ñuy faje pour sa biir wàcc sa yara sa graisse maanaam lakk euh, ñu muy def noonu ba benn waay ñëw euh, waajooju nag naroon na koo takk bëggoon na sax mais ndaw si gis na ne waa ji jantal na mu jàpp ci manqué confiance am kene kii daf ko nar a comme góor ñëpp mu ne ko noonu man ma suñu ma bëgg kon kii dafa ma nar a balaa mu may rejeté nag man naa ko rejeté maanaam bañ ba mu bañee nag waajoo ju dem mais terewul moom bëgg na waa ji waa ji ci ginnaaw cofeel dugg na ko ci digganteem ak eh, ki nga xamante ne nii moo di ndaw si eh, beneen waay bi nga xam ne moo jóge Angleterre pour ñëw pour takk ko gis photom encore ma mooy kii ci image yi eh, waa ji mu ngi ko koy ne ko sa yaay dafa gis koo xam ne mu ngi jóge Angleterre pour bëgg laa takk moo tax mu indi la fi fay xaalisam ba waa ji ñëwee tamit même chose la rek mooy que ne ndaw si photo ba mu gisoon ak li mu gis du benn ci la yaayam nag euh, dal di ànd ak moom ci waa ji mu ne ko ci 10 jours maanaam ci un mois mën nga wàcc ba sa graisse jeex tàkk tàkk tàkk ndoo ndaw euh, yaayu xale bu jigéen bi ne ko c'est mu ne ko waaw waaye ba date boobu jotee ndaw si gis nga ko maanaam wàññeekuwul te gis nga keneen ki nga xamante ne nii def na malaise ci sport bi nga xamante ne moom la ñuy def ndax dafa am machine yoo xam ne dañ leen fay dugal mooy lakk seen graisse ak machine yoo xam ne day vivre ci seen i biir pour lakk seen i graisse ak yooyu euh, waa ji nag ne leen li ngeen dul jël ndox bu bëri moom la waaye médecin bi dene euh, maanaam lii ni ñuy forcé bëgg a jeex kut kookut baaxul si ñoom te génération bi li moo leen yàqu mooy tey da ngay bëgg sport tey jeex tey bëgg maanaam bëtoo ba bës tey borom kër ñëw nga bësaat di forcé nga bësaat leneen ak leneen maanaam li muy wax foofu mooy xale yi dañoo yàkkamti seeni dund ndaw si nag ba mu jógee ci yooyu yëpp ci la ne pourquoi pas man ma ubbi salle sport mu ubbi salle sport boo xam ne maanaam da cee nekk ak ki nga xam ne moo ko doon bëgg maanaam ñu créer fekk ndaw si découragé na maanaam ndax amoon na benn publicité bu jotoon a jaale ci télé yi def bës size zéro size zéro maanaam tay file taille file taille file léegi nag waa ji ne ko pourquoi pas yow nga def contraire bi contraire say size zéro bi nga wone ke jigéen ju am jëmm maanaam jigéen ju am valeur la jigéen ju maanaam jekk la Euh, di solu sol bi nga xam ne ànd na ak sa koor nga bañ a def sa xel ci maanaam size zéro bi ndaw si tam def publicité boobu publicité boobu amee nag mu jàll am euh, maanaam euh, ñu commencé créer seen salle sport ak yooyu ndaw si commencé ci réussir maire yee paa yeeg xale yëpp commencé ñëw ci moom commencé bàyyi. ki nga xam ne moo ubbi woon saay zéro bi maanaam ñu daal di koy won ginnaaw nag mu nekk xëccoo ci seen biir waaye nag euh, ca cëppaandaw la ndaw si euh, ñëpp daal moom la mujjee jox bopp waa ji nga xamante ne aussi moom la doon bëgganteel moom la dàqoon waajoo jooju dem ba nekkoon nag man dama la bëgg ndaw si ne ko man yow laa mës a bëgg waaye dama jàppoon que ne dinga ma rejeté moo tax ma wax li ma wax te sama yaay moo dëkkoon ci samay nopp naan ma doo am jëkkër doo am jëkkër ndax ni nga toll kenn du la bëgg ci noonu ndaw si waa ji nag ne ko nit ku nekk ak ni la yàlla bindee da nga koy jël maanaam feer ci ni la yàlla bindee ndaw si jël loolu maanaam def ko ci xelam kontaan aussi nekkaat ak ki nga xamante ne ni moom la bëgg maanaam waa ji ci fin bi ñu mujjee mari mais li ñuy bëgg a wax foofu mooy tey da ngay nekk taay fiir ñu topp la danga nga da nga sew yow yaa ngi mel ni squelette xanaa doo lekk xanaa doo nii xanaa doo naa psychologiquement nga ne xaaral ma jël ay garab. pour am yaram xale yu jigéen yu bëri tey jii ci diggante deux mille vingt deux mille vingt et ba deux mille vingt trois bi tey jii maanaam jël nañ poids boo xam ne soo leen xamoon da nga naan ñii dañoo jël pois ndax lii du yaramu naturel ñenn ñi nga xamante ne aussi sama genre yi la ñu def nañ ci seen xel. kene da nga pataa da nga pataa da nga pataa ba mu jaral la tey nga jël produit yi nga xam ne ñu ngi koy jaay mu nekk produit yoo xam ne peut-être boo ko jëlee mën nga cee gis résultat bu gaaw waaye balaa yàgg rek mën na la indil ay conséquences di lu ñu gis ci jamono temps bi mu ngi dem Alaaji Sanjoogu Mbeng temps bi moom tey moom tey jël naa ci temps bi. fàtte nga ni da ngaa teg oh. teg film ba pare xuus ba. Oh. <laughs> voilà xam nga gis nga nit moom. Mm. Euh, li njëkk mooy. Mm-hmm. Euh, nga xam yow yaay kan. Mm-hmm. Euh, boo xamul sa bopp rek. Mm-hmm. da ngay neex a dévier. Euh, ku ne di la watat watatee. yàlla bi mu leen bindee ngeen nekk ay modèle yu hmm. wuute. Hmm. lañ xam ni góor ñi tamit dañu am ay choix yu wuute. wallaay wallaay. Hmm. ni mu amee koo xamante ni kii ku sew rek lay wër. noonu la amee koo xamante ni ki moom ku am yaram rek lay wër. donc nag bu la yàlla defee nen. da nga delluwut ca way wa ku lamb yaa tey daagul fañ la nobee wallaay wallaay donc dafa am yoo xamante ni bii mm-hmm. eh, jarul di bàyyi xel rawatina nag yu naturel yi nga xam ni moom la xale yu jigéen yi jógtee mm-hmm. booy yu bari yuy def léegi TikTok man gis naa mm-hmm. ñoo xamante ni bii keroog Eh, ña nga dem ci ay kii sol ay loolu ñu di leen pikiir ci kii ci seen fes waaw xam nga loolu pompe mhm. musiba naaru laay la yow liñ ñu lay mhm. pikiir nga jekke-jekke mu ne fuut xamoo kañ lay toj ak fan lay peeree yaa ngi dégg te dégg naa pareen saay day jekki-jekki benn bi peer benn bi waaw ngay dox kay affaire yi <laughs> waaw waaw waaw dëgg la dëgg la yaa ngi dégg dëgg bu ko defee léegi nga déformé ba faw c'est yooyu mooy yi nga xamante ni bi <laughs> ay mbir yu garaaw la donc léegi euh, jigéen ñi mm-hmm. Euh, nañu def attention parents saa yi da ngay gis jigéen yoo xamante ni moom defar na ba pare moom def na ni mel. Mhm. ne moom nii doo nga jëre kii. yow mi nga xamante ni bii tamit yàlla bind na la nga def taay mhm. waneel ne ni ma mel nii rek. moom la parce que ñi leen di xool ñëpp ku ci ne am na. ku muy xool. Mhm. waaw donc loolu mooy li ëpp solo mais nag dafa am ñoo xam ni fëkk da leen di yóbbaale. ba ñu teg seen boppu ay feebar yoo xam ni kenn du xam yan genre feebar la. mbir la moo xam ne bu la ko suñu borom maye mhm. mhm. teel mhm. mais dangay gis man bés bi may njëkk gis benn waay boo xam ne day tatouage bët bi ci biir bët bi dama ne ay ah, waay kii xamul bët hmm. may man mi nga xamante ni bi sama bët yaa ngi ngelligee xam ne bu ma amoon li mais koy pikiir te ki koy defal tatouage bi pour bët yi nekk comme genre bëtu segg yooyu maanaam bët yi dootul am lu weex loolu la bëggoon pour lépp ñuul aywa comprendre nga gis waa ji day jël kii bi pikiir ko ci bët bi sans anesthésie ko sans def ko dara hmm. kii ko seringal bi ci bët bi ah, comprendre nga xam ni ñii beneen monde lañ ne beneen mhm. saay il faut nga xam sa bopp quoi xam ni tamit les goûts et les couleurs ne se mhm. nit ku ne ak la mu bëgg mhm. tey ji am na koo xamante ni kii ma nga sew ruuj doon góor mais ngir yànke lay wër am na koo xamante ni kii kii la may leneen lay wër mhm. donc yëpp a baax modèle yëpp na ku ci nekk toppatoo boppam macha allah dëgg la am na solo gëm sa bopp ci li la yàlla bind rek am na solo Omar xam ne des fois comme li mhm. saa wax mhm. euh, mooy euh, kii moom am ñoo xam ne taay taay pataalan am ñoo xam ne taay taay kurdan waaw taay kurdan ñi ñi karoline ñi ceeb bu sew waaw waaw am ñoo xam ne ceeb ceeb bu dijj rek am na ñu bëgg taaye taaye fil nag. takk dir yanke yooyu itam problème lay nekk ñoo xam ne nag. Mhm. ñoom di nga góor daal borom moo ko teral. Mhm, mhm. pourquoi mun ñu ñeent. mooy mun nañ am bu gàtt. wallaay mën nañ am bu njool mun nañ am bu pata mun na am bu sew yàlla da leen beral loxo ah <laughs> c'est-à-dire que ñeent yi moom foofu rek la matee parce que àddina moom da ngay njool mbaa nga gàtt wala nga rëy wala nga tuuti yooyu yëpp doon ay teraanga yoo xam suñu borom dafa defal góor léegi nag jigéen daf ci am keroog dama seetaan ci tiktok bi koo xam ne. Mhm. ku ku nit ñi nawoon ab jongamaam la ci réew mi. Mhm. tudd waaye dama ko mujjee gis waaye dafa peer. Ah. te ñi te ñi ko daan jiñ yooyu. Mhm. nga xam ne kon euh, des fois. bu lépp peeree sax baax na mais tamit benn angle bu peer. waaw mais mais moom daa peer daa ñu nga def nii. daa ah. am na am na am na ci ñoo xam ne da ngay jàpp noo drianke fekk drianke wu. yooyu ñi naan drianke lex la leen jox lex. waaw forme bu ñaaw kay. waaw am na ñoo xam ne ay mm-hmm. dañuy mel ay bun fokkin doo xam. am hmm? <laughs> yooyu yëpp ay ay mbir la yoo xam ne. xam dafa am benn kilifa diine bu mag ci réew bu doon wax mbir mu am solo. Mm-hmm. mu ne ñu xam la. Mm-hmm. wala. ñu xamal la yooyu yëpp am na solo mais xam sa bopp maanaam nit déjà. Mhm. day xam boppam. Mhm. xam moom lan moo jekk ci moom lan moo gën ci moom. Mhm. ak lan moo tax muy avancé. maanaam yooyu bu dee yow da dox ci bëgg-bëggu nit ñi parce que am na ñoo xam ne dañuy seen bopp pour man. parce que doxatul ñoom ci nit bëggee mais dañuy doxee nit ñi bëggee bu baabaa yow nag da ngay réer parce que nit ñi fu la neex la lay bëmax parce nit ñi mënoo leen satisfaire à cent pour cent mooy. boo boo xeesee ñu ne ah yow da nga waroon ñuul. waaw pourtant da ngay groupe jigéen bu xees kenn ñuul ci. dëgg la kooku ñëpp di bëgg. dëgg la ah yow de bu xeesal. dëgg yaa ngi gis comme des fois yow en tant que nit. Mm-hmm. xoolal li la jàpp ak li gën ci yow. ak li mm-hmm. war ci yow mais am loo xam ne aussi bind la ci nit. Mm-hmm. bëgg ko soppi. indil problème sa bopp la am na ñoo xam ne naturellement bu ñu doon xoola naan lu ne ci àddina wala ñuy régime ak lu ne ñu ci àddina duñ mës a jeex jeex mais am na ñoo xam ne nag moo xam la benn affaire ñoo naturellement naturellement mhm. noonu mu mel. Mhm. boo jëloon góof yoogu yëpp di leen ko sol. Mhm. du tax ñoom ñu doon ay diriyànke benn ci juddu bi lay doon benn bi ci bind bi lay doon. loolu nag boo ko xamee yow si sa bopp. mais de nit waa ji naan bàyyi leen ni ma yàlla def mu noppal leen. mais yow ni la yàlla def mu noppal la. dëgg la dëgg la am na solo ma macha allah Sohibou waaw xam nga xam nga ñaari gaay yi ñaari gaay yi li ñuy wax ni yëpp. dañuy sëlëm nit ñi rek. Ah. waaw ndax jigéen ñi coono bu ñu daj di pigir seen bopp. Mm-hmm. di pompe mm-hmm. di roof di monte <laughs> góor ñee ñu na. Oh, ñun suñ jataay boo fa demee xam nga lu ñuy wax xale bi dagg bi waaw gis nga ni mu njoolee mm-hmm. gis nga ni mu xeesee gis nga kii bi gis nga taay coca bi gis nga taay nangam mais débat yooyu ñuy waxtaane moo dugal góor jigéen ci lool mais bu fekkoon ni. nii ko gaa yi di waxee noonu lañ ko gëmee ñun góor ñi. Hmm. naan waaw ku ne ak sa gu ku nekk sa marque ku nekk na la yàlla yooyu yëpp am na ci penc waaw moom laa yëpp dafa am ci bi yow kay bi nga ci doon préserver ko rek waaw moom laa dama ne waaw dama ne bari na ku sew ruuj su gëmoon ni am na koo xam ne ku sew lay wër day toog jàpp njàmbaram xaar ko mais li muy dégg débat yi muy dégg ci penc mi mm-hmm. yow xam nga ni saa suñu jotaay góor ji bari loolu la ñuy wax xale bi dagg bi nangam boo demee loolu moo boo demee ci bitik bi tey waaw bitig ba dafay jaay article yu wuute. waaw yaa ngi dégg. waaw léegi nag ka nga xamante ni kii moom ci jëmmi boppam wax na client yi kii nee na man bii laa bëgg kii de bii laa bëgg. bii laa bëgg moo tax ndaw si moom bi yor moom na ko. waaw léegi bi mu xam nga am na loo xam ne dañ fay fidèle. maanaam bu ñu gàttee. Mhm. dinañ xam ni gàtt nañ dañ koy téye. <laughs> waa léegi moom la gàttaay bu mu ci dara. waa léegi yow. am déet waa léegi léegi ku ne ku njool la bëgg. waa léegi léegi am kuy wër ndaama. waa léegi xale bu jigéen bi toog ah. ci biir kër gi. di dégg ci réseaux sociaux yi ak jataay yi li fiy xew te moom mu mu sew. Mm-hmm. chaque jour mi ngi ci koñ bi di xam loolu. Mhm. mais day jéem a def ay pexe. dëgg yi jaay comprimé yi réyal jigéen ñi ñoo fi gën a doxle. waaw léegi jigéen bi pata moom yëg ni moom jigéen da war a kii loolu moo war a ñuy takk ay geen ak lu nekk. Mhm. des fois nga gis jigéen kii nga gis forme fekk geen la takk. bu demee bi ko dindee nii lay defaat. mais loolu day yëmba waaw day yëmba parce que genn la ñuy takk ñu ci bari genn la ñuy takk meluñu noonu am na ci biir yoo xam ni kañ kenn xamul biir ah waa mi nga gis biir bu ne ak ndoro xëy ndoro <laughs> ah, xëy waa léegi waa léegi li mu laay wax léegi nag léegi nag yii nii ñuy dégg ci yéen nag moom moo waral jigéen bi am yaram daa dem takki takki geenam daa dem di jënd ay kiyam ay reew la neex moom Assane bëgg na ko garaaw Assane ah? mais léegi am am am am na beneen boo xam ne sukaa man jàpp naa ne am na te ku dem bitim réew mm-hmm. di nga gis ñu koy def te amul effet secondaire man gis naa mm-hmm. sama jigéen boo xam ne moo la ëppoon ñaari yoon mm-hmm. mais bi mu demee dafa dem hôpital ñu traité ko jox ko ay comprimé opéré ko mais léegi boo ko gisee euh, ma jigéen a ko ëpp te pourtant déformé wu ko mu ngi nekkaat xale bu jigéen bu ndaw dafa dem hôpital mais gis nga bu fekkee ni suñu médecin yi demoo fa amoo xaalis bu la opéré amoo xaalis boo fajoo nga topp ci comprimé yi di naan bu yàggee peer gii la gu di la di la wax moo lay dal nga jékki-jékki benn côté bi peer am na waykat bi kii di wax barki dem bi ma ko gisee bi mu doxee daa mel dañ ko doon ñot bi fekk fii moo dem fee def nii mm-hmm. te bu ay jamono fii moo defoon nii fee def nii mm-hmm. léegi nag loolu mooy waral Euh, jigéen ñi nañu bàyyi opéré bi mhm. sa film bi nag li nga ci indi mhm. euh, lu am solo la dafay jàngale li xew ci pénc mi muy yaay yu bari ñoo dugal seen doom yi ci xeesal mhm. ñoo leen di dugal ci naani pilule kii ah, naan ay doom ñoo leen dugal ci nangam xoolal sukkaat ni mel xoolal diw ni mel fekk moom ak sukkaat bokkul waaw nañ bàyyi seen doom yi ñu yor forme bi ñu yor ba keroog ñu am kiñ bëgg dëgg la des fois sax ci famille lay doon des fois mm. sa papa mooy am yaram wala sa yaay yow nga judd continuer am yaram bi te doo ko mën a te doo ko mën a dindi ñu tuddee la sëy na bu yaatu waaye fekk sëy nanga nga mel noonu mm-hmm. est que loolu neexul sa jëkkër wala mu neex koo ah. xam njàkkaar na ko waaw d' accord waaw temps bi mm-hmm. temps bi moo jeex léeg-léeg aussi sa borom kër poussé la ci mu leer la kene sa borom kër mm-hmm. da lay day wax maanaam taay fil taay fil nga bëgg a nekk taay fil wala mu naan la jongoma jongoma nga bëgg a soppi sa bopp. am na du droit waaye. waa waaw ku góor ki léeg-léeg mu dugal la ci. mais tane na moo tane ki nga xam ni moom jaragul. ki jaru ko moom marque bisu ñëpp la. waaw léegi nga ne ko xas jar ba pare moom nga ne ko demal wuti ku mel ni nga bëgg. te bàyyi koog formam. dëgg la bu dee jongo ma nga bëgg daal ah, yow. moo tax ñaareel la ñuy bañ moo tax ñuy ñuy kii. waaw <laughs> te waa ji mën naa bëgg sa oh delluwaat. <laughs> ça dépend ci. góor ñi gàddu ngeen ci ñun ak ah, walaay tëjal gaaw. góor ñi gàddu nañu am jigéen ñi ci ñun sonn nañ torop. torop walaay lii poos xef fii ne day ah, na waar waaye nag. saison saison wu tàngoor da am ko soxla seddaay da may ñu yow continuer yow na nga bànn bu tàngee nga tuuti waaw ah, du yéen a yéen a ko yéen a continuer temps bi daa jeex ci temps bi ñu jël mhm. di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan rek ma naan ku nekk rek na nga mel na la neex na la yàlla bindee ba ko noonu te mhm. xam ne mooy li gën si yow mhm. kon su kambaay rek ba mercredi prochain dajal neex na yàlla suñu borom nga ni ñu nag yi na